man benn message laa am ci personnel bi nawet jot na j'ai déclaré au niveau de Cambérène que dépassé nañu waajtaayu nawet dépassé nañu opération pré-hivernage aujourd'hui on est plein dans l'hivernage man à partir du 1er mai j'ai déclaré que l'hivernage installé wu na te dëgg la am na parti yu bari ci Sénégal mi ngi taw te ku gis asamaan si ni koy suñu borom wane xam na ni ndox mi soreetul ANACIM nga xam ni mooy agence bi yore wàllu prévision yéen ñëpp dégg ngeen li mu wax ren incha allah ndox mi dana teel a ñëw dana bari te dana gari dana gën a bari sur la côte ouest c'est ce que l'ANACIM a dit Ah, c'est va di trois choses au moins ndox mi dina teel a ñëw dana bari te dana gën a bari fii ci sowu jant mooy ndakaaru ak li ko kon li muy tekki mooy ñun ñi nga xam ne suñu liggéey mooy fexe ba effet inondation yi wàññeeku war nañu gën a taxawaat xam ni am na ay défis yu mag a mag yu ñuy xaar je ne doute pas je ne doute pas de la conscience élevée des travailleurs de ONAS parce que seen liggéey métti na surtout les agents de l'exploitation ñi nekk ci canaux yi nekk ci naaj bi nekk dans le curage dans les travaux de colmatage de sondage di liggéey guddi ak bëccëg avec les risques yi ngeen fi wax léegi xam nañ ni effectivement liggéey bi métti na te gàcce ngaa la ma di ça on le sait waaye nag ku ñuy xaar ci yow lu bari dangaa war a gën a takku donc c'est l'occasion pour moi mesdames messieurs ma lancer personnel bi appel hivernage bii di ñëw nañu gën a taxaw gën a góor góorgóorlu def comme un seul homme ñu liggéey ngir population yi ndax loolu moo tax ñu teg ñu fi ah quand ça marche alhamdulilah benn la ñuy wax mais bu jafe-jafe amee ku ne xam na ni benn structure la ñuy ciblé mooy ONAS ndax suñu liggéey la bu liggéey bi doxul ONAS la kon nag niñ doon def année année yi passé di góor góorgóorlu di ko def maa ngi ñaan personnel bi en ko cas nekk fi nga nekk nga gën a góorgóorlu gën a yokk li nga daan def gën a yokk sa taxawaay gën a jël say disposition ngir liggéey bi gën a gën a gën a gën a jaar yoon c'est le message que je voudrais lancer soyons nañu taxaw nañu taxaw comme un seul homme pour préparer le hivernage et loolu concerné wul rek les agents de l'exploitation ça concerne tout le monde agent bi nga xam ne bureau la nekk di signer une facture ci la bokk ndax bu signer une facture bi entreprise bi liggéey l'agent qui doit faire la réception mais ci la bokk le le responsable du courrier ci la bokk l'assistant tout le monde ku nekk ci ci ci ci ci nekk ci liggéey bi nekk ci biir chaîne bi war nga xam ni bu ma liggéeyul wala bu ma tardé sama heure affaire yi du dox kon danaa porter préjudice ONAS te bu ma porter préjudice ONAS dana am kër goo xam ne dana taa te bu amee lu taa dana yàqal réew mi dana yàq image yu dëkk bi et ñu ngi ci une bonne dynamique et Sénégal ñi ñuy observé ñëpp ñu ngi ñuy observé son excellence le président de la République Macky Sall teel na jël ay disposition teel na wax nañu préparer l'hivernage teel na wax nañu préparer les le conseil interministériel def nañ ko bientôt on va aller vers le conseil présidentiel bi nga xam ni mooy régler la planification pour les dix prochaines années ñun ñoo ci des ñun ñoo war a taxaw góorgóorlu équipement yi fi mu war a dem na fa dem fi ñu war a pomper nañ ko nañ ko pomper travaux yi ñu war a def nañ ko nañ ko yeggali responsable bu ci nekk li nga war a def nga def ko en tout cas le directeur général que je suis ne pardonnera aucun écart. Et ça, je veux, je veux être très clair. Il faudrait que, que nous soyons irréprochables. mënuñu pardonner des écarts mënuñu pardonner des manquements ci wàllu inondation et je ne peux pas l'accepter et vraiment je veux qu'on soit clair là-dessus qu'on s'entende je serai intransigeant de ce point de vue-là et je l'avais dit au début man ak yéen ci terrain bi bu liggéey bi commencé ce sera le directeur général et les agents sur le terrain parce que nous avons une responsabilité qu'on nous a confiée nous avons une mission qu'on nous a confiée et danañu fexe ba mission boobu nga xam ñu confié ñu ko danañu fexe ba doxal ko ni ñu ko war a doxalee j'ai confiance en vous